feggoog sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne mooy yor kaddu njabootu Daso ak délégation bu takk ñu ñëw fi nag fekk fi euh, njabootu yoonu murid bépp sëriñ Cheikh Abdou Latif yabal na fi sëriñ Abdou Lahad Mbacke doomam mi ngi jataay bi sëriñ Sidi bi mu wootee mbooleem njabootu Darou Salaam kenn desut ak njabootu sëriñ Afe sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Abdou Assis moom sëriñ Afe mi ngi fi. feggoo naag jabootu serigne Amidoun euh, serigne Omar Mbacke serigne Cheikh Mbacke mom serigne Modou Rokhaya bi nga xamé kaddu dal bi ñew andana ak ay rakam ak njabotam serigne Abdoul Khadir Mbacke ak serigne Mbacke Madina ñom it andana naag ñoom ñu jataay bi euh xamna dañuy jukki len ni ci kaddu waaye duñu man ñi ñëkk ci jotaay bi ñu tuddu len waye baye galas mom serigne Mamoun teew fi di len ziar di jiiteel ci nuyoo bi sëriñ Babacar Mbacke bu sëriñ Mouhamed Mbacke Abdoul Aziz sëriñ Khadim Mbacke sëriñ Ibra Mbacke sëriñ Modou Mbacke Fallilou sëriñ Modou Mbacke Mourtada Fallilou sëriñ Cheikh Anta Mbacke

Monsieur le préfet du département de Kermassar, je voudrais saluer également Monsieur Adam le maire de la commune de Kermassar Nord. Saluer aussi Monsieur l'honorable député Moustapha Mbeng. De nous également conseil yi fi municipaux voilà départementaux. di nuyu chef de quartier yi moo xam bàjjenu gox la di nuyu invité yëpp ko defee xam naa ñun suñu kàddu du du bari ndax guddi na te kilifa yi li ñuy wax moom mooy jariñ nit ñi mais ñun li ñuy wax du jariñ nit ñi te ñoom ñoo fi andi nit ñi ko defee guddi la goo xam ni guddi guddi leer la guddi barke la dañu fi ñëw sàkku barke sàkku leer ka defee ñu ngi ziar sëriñ siidi di ko ndokkeel bu baax ci guddi gi di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàgg a taxawee yéeneen bi way jur am way juram amoon yàlla kàttanal ko dooleel ko ba mu yóbbu ko fu ëpp fi yéene way juram tollu woon yàlla mën na ko yàlla na ko def ndax lu mel ni su ko amee yiw bu mel ni mu déplacé wu moom en personne ñëw ba sama bureau jox ma invitation loolu mënu ko ci fay ndax ruux yëg-yëg moo ko yéegee ci boroomam ibnu Khaldun dafa wax ni

di am mbégte teew fi yal na yàlla may ñu ñu fekke ko at yu bari yàlla defal la ci ndam nga montal yéene kilifa yi te dëgëral la bég nañu bu baax a baax dañu doon nuyoo doon ziyaar di wax ci turu conseil départemental bi kontaan nañu monsieur aadama maire di nuyu xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu njabootuk Cheikh Ahmadul Xadim gi fi teew di nuyu Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan di nuyu njabootuk Cheikh Ibra Ndar nuyoo bu sell bu barkeel bu yiwe mooy sëriñ siidi di njabootu sëriñ Moodu Maamun ngir mu eggaleel ko nuyoom ci kilifaam yu tedd yi fi nekk muy sëriñ Babacar ak sëriñ Cheikh Anta ak sëriñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moo jiite délégation bi nga xam ne moo jógee Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jël nuyu bi itam teg ko ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal yëngu àddina bi muy ki nga xam ne mooy monsieur la madame la ministre soxna Assome jaata ak ki nga xam ne mooy honorable député suñu xarit Moustapha Mbengue ak ki nga xam ne itam mooy président conseil départemental bi muy Serigne Babacar borom kàddu yu rafet yi sëriñ siidi mu le maire nee na dafa ñëw ngir jokk kóllëre gi nga xam ne moo nekk seen diggante ak itam beesalaat taalibe nga xam ne moo nekk seen diggante ak itam di tàllalaat ay loxoom ngir nga ñaanal ko mi ngi lay xamal ne itam lépp lu mu am àndaale na ko mi nga ànd ak soxna Rabi Ndiaye mi nga xam ne ci action mairie la bokk ak soxna Umu Salamata Kan mi nga xamne ci adjoint maire la bok ak kali mom tam ci adjoint maire la bok ak Alassane Touré chef de cabinet am Fall chef de protocole khassim nyang Ñang mi nga xamne ne yor communication mi nga and ak ñoon ñep ngir dara jaal la dara jaal sa bis bi nga xamne ne xam nañ fi mu la toll ndax sa ju bax ji mom mo la yittel kon nee na noonu la ñëwee waaye nag di sàkku nga ñaanal ko te sàkkul ko ñaan ci sa mbokk yu baax yi fi nekk moom dafa bëgg sunu borom def ko muy ker gi nga xam ne mooy keral waa Kër Masaar di kër gu dëll goo xam ne ku ca toog mucc di garab gu naat goo xam ne képp ku ca toog ca ron ga mu am meññet mu la leel ba nga suur ba kenn du tumuraanke Kër Massar mi ngi ñaan itam nga sàkkul ko ñaan ci kilifa yi sunu borom def ko muy ki nga xam ne mooy far njàqare ak jaaxle waa Kër Massar di fomp seeni rongañ itam ndax loolu mooy yéeneem mooy niséram ndax moom ngëm-ngëm bi nga xam ne moom la suñu mag ñi baax yi amee woon moom moo nekk ci moom mooy Seydi Alaaji Maalik dafa wax ne tasilu بالاعmaali lil jinaani waaye bi adabin tasilu lir rahmaani loolu mooy yoonu aljanna jaamu yàlla ak liggéey la waaye nag boo ca boolee am ab yar ak i teggin jaar nga ci yoon wu lay ci sunu borom subhanahu wa taala te loolu mooy idéologie gëm-gëm bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba yoroon ba génn ba génn di dem دفعنا سبب خيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاها وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي دفع بوكو تلك تخون جن موي سوي أكتلي نيغا خمنا نيوم نيوي أسكنام نينا موم لول موم موكو تخجوك بوكا دفعي لول لبغ nga ñaanal ko te sakul ko ñaan ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootug sëriñ tuubaa gi fi nekk nee na mi ngi dellu di sant di la gërëm di la ñaanal di ñaan sa baay ju baax ja nga xam ne moo jiitu woon comme ni ñu ko waxee nit la woon koo xam ne dafa boole woon jullit ñëpp wuuf ñëpp yaatal ñëpp ba noppi itam aw uuf murit yëpp yaatal ñëpp nee na mi ngi ñaan sunu borom dolli ko ngërëm dolli ko leer dolli ko barke njabot gi mu fi bàyyi itam sun borom sàmm ko yow mi nga xamne ya nek ci bop ba itam sun borom sàmm la wacce ci yow Cheikh Ahmadul Khadim wacce ci yow maam Cheikh Anta wacce ci yow barkeb Cheikh ibrahim Ndar waye itam wacce ci yow barkeb sa baay ju bax ja ak mbollem say rak neena na mo nekkon kaddu yi di sant ñepp di gëreem ñepp xamna gënon na jot waye xeyna na waxtu yu moom moo xat wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Sidi li ma ko waxoon rek laa koy waxaat jotaay yi mel nii samay kàddu du si mën a jóg parce que ay taalibe nañu lenn li nga xamante ne mën nañ ko def mooy tàllal suñu loxo sàkku ñaan kilifa yi nga xamante ne ñoo fi teew ñaanal kàddu yi nga xamante ne si ñoo ngi ko fiy génnee. bu ñu demee jëriñoo ko bu ñu demee jëfee ko guddi gi mel nii loolu rek lañ ci am moo tax kàddu yi du gudd mënoon noo ñàkk sax parce que sunu kilifa wax département parce que moo jiite six maires yi nga xamante ne ñoo nekk ci département Kër Massar bi yëpp ñoo ngi jéggalu di tuub di tallalaat sunu loxo njabootu Seexul Xaadim bi nga xamante ne ñoo teew fii yëpp ba nga xamante ni si mission bi nga xamante ni si yàlla teg na ko suñu kaw mu doon réussite ba askanu Kër Massar ba askanu Sénégal yëpp mun see jëriñu donc asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bi nga xamante ni Serigne Sidi Mbacké moom la jagleele bés bi nii mu di ci sant yàlla bu baax a baax a baax Moustapha Mbengue ñu teg ci l'honorable député Samba Demba njaay ñu teg ci honorable Pape T'es honorable Terence Senor, T'es monsieur le maire Matar Diop T'es madame le chef de cabinet Sapir Mbaye T'es honorable député Mariama Sissoko T'es le chargé de mission président Hassan Silla T'es monsieur Moustapha Fall Daf le directeur administratif et financier pour madame le ministre teg ci sëriñ Maodo Malick Mbeng teg ci ñu teg ci monsieur Mandiaye Diop ak monsieur Makhtar Mbeng su ko defee ñu teg ci Serigne Modou Mbène Diop ambassadeur itinérant waaye madame le maire Olimatondoy, Ndoye monsieur Abdourahmane Ley. teg ci monsieur Ibrahima Babou teg madame Awa Cham, madame Soda Diop teg monsieur Omar Silla teg monsieur Idrissa Diallo teg monsieur Pape Cheikh Tal Ba mangi nuyu suñu kilifa ñu fi fekk yépp waaye di jiital ci nuyoo bi Serigne Babacar mu kabaru Serigne Cheikh Anta Mbacké Daru Salaam waaye da nuyu aussi Serigne Ibra envoyé donc de Serigne mountaha di nuyu Serigne Bousso wet ki nga xamantene ñepp xam nañu aussi limu def ci yoon murid muy le parrain Serigne Fallou ma ngi lay gërëm bu baax di la sante ci honneur boobu da nga baax rek di def mala ci sante bu baax nak di wax ni euh, gis na teranga bi waye di la ak yalla ndax nak nit bu la defale loko mën ta fay yalla rek nga koy baye ndax mom rek mo meuna fay sering Sidi ma ñëw fi chi nyari ci ñaari casquette ndax jàppoon si honor bi nga ñu defal waaye jàppoon nañu dah ndax ay doomu Kër Massar lañu waaye nak monsieur le président la république son excellence Macky Sall fonk loolu bi waaye fonk la fonk loolu murit comme ni mu jox ñu donc digal ne ñu nañu ñëw fii ànd ak responsable yi nekk ci département bi teewal ko fii délégation bi lim nañ ko sànq xanaa dafay am ñeneen ñu ma ci damay limaat rek mooy honorable député Moustapha Mbeng mi nga xamante ne ñëpp xam nañu taxawaayam ci département bi waaye tamit honorable Papka ak ambassadeur Modou mbenn Diop di ambassadeur itinérant waaye tamit di nuyu Terence Senghor ak Mactar Diop ak kilifa yi ñu àndal yépp may nuyu kilifa yi ñu fi fekk ku ci mel nii monsieur Babacar Gueye président du conseil départemental ak mosier Adama saar ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nga ànd ak seen délégation bi ma leen di gërëm bu baax di leen di sant sëñ sidi di di kontaan loolu ci ci bes bu besu tay bi nga xamantene ne bu am solo la ñi ci rendre hommage seigne Modou Mamoun gis li nga xamantene ne def nako ñu gis ni aussi amono na non seulement si temporel bi ndax nekkone fonctionnaire international waye mu am taxaway gu am solo ci spirituel bi donc loolu muy souvent aspect yo xamantene da fay jafe nga gis kuko réunir waye ñi gis lepp li nga xamantene ne def na ci yoonu islam di ñaan yalla mi nga xamni mo am fay yal nako ko yalla fay waye sen sidi duma ñew ba fi bës bi téwal fi président de la république am soxla té duma ko wax ndax nak da fay bës barké di bésu ñaan nous jublu ci ay élections législatives kon dañ ci sàkku ñaan ndax amuñu lenn lu dul Sénégal te jamm ci la lépp xaj élections yu ñu jëm nak di ay élections yu crucial ndax bu njëkk da ngay joggé ci élection présidentielle jëm ci ay élections législatives après dem ci yenen élections élection législative solo gi mu am mooy mooy jox président la république dogal bi nga xamante ne mën naa doxal réew mi mag yi damay dégg ñu doon wax ni ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka saa yu amee rek dafay am laale te laale moom bu amee lu ne mën na cee am Sénégal euh, en 1963 la ñu amoon li xaaw a ak li ñuy naan cohabitation ndax président conseil beaucoup woon gis-gis ak président de la république waye gis nañu lepp li nga xamantene lool mo ci am kon nak tey ji Sénégal bo xolé dekk yi ko wër yépp instabilité bi fa nek dañoo wara jog takku fexé ba li nga xamantene suñu mag yu baax yi ligéyon nañ ko fi ba Sénégal am stabilité ñu fexé ba préserver ko ndax Sénégal mom moy îlot bi mom moy lumière bi nga xamantene Afrique numu mu lëndëm lëndëm Sénégal day am lumière ñaani moko def macha ci euh, euh, dogal euh, dogal suñu borom bi subhanahu wa taala waye tamet ci doxalin bi nga xamantene yag nañ ko doxale kon nañu fexé ba ci élection yi di li nga xamantene moy jox dëkk bi dal muy une majorité pour le président de la république mang koy sakku ci yenn di talal samay loxo ngeen ñaanal mako ndax nag duma ñew ba fi loloy sama soxla duma ñew ba fi di del duma wax sama soxla mang leen di gërëm bu baaxa baax di leen sante jërëjëf